tey pour def marche def déclaration déclaration bi, Macky le président Macky Sall directement wax ko ni décret bu mu signé jox ko Babacar Ngom defal ko titre foncier wu 225 hectares loolu le gila d'accord. d'accordu ci d'accordu ci waaw ci d'accord Nafi au Nafi Nous titre foncier pour liggéey Babacar Ngom titre foncier pour n'est-ce pas donc investir bu Babacar Ngom jox 500 hectares 500 emplois titre foncier pour def ko ay ñu ngi opérateur économique plan rêve opérateur économique étranger là.

di wax au nom de Djila représenté wuñu Djila représenté wuñu Djila chef de village nekku fa woon conseiller nekku fa won kon na ñooñu ñom ñoy suñu kilifa fi benen bi ci dess indemnisation bu muy wax ak dédommagement bobu amul benn population Djila bu mu amul benn population Djila bu mu indemniser bu mu dédommager amul té pourtant tey jii ba muy def délimitation 225 hectares am yoyu bëri na ño xamné ay borom kër lañ bëri na ño xamné ay ndaw lañu sen tol nek ci bir mu jël ko yak sen installation yak sen liguey te faalewu leen tey jii buñu wax ak mom sax da leen di ci pour kon koku ñewul pour n'est-ce pas donc aider la population de Dila. mais dafa bëgg suba mu def ñu ay esclave n'est-ce pas donc ci ci ci foncem boobu. wa manam moy 30 millions yu muy wax 30 millions yoy commune la versé. commune mi ngi ko jaayé hectare bi 100 000 francs bo démé ci procès verbal bu délibération bi au niveau du conseil rural fofu nonu dañu ni clairement 100 100 000 francs la jëndé hectare bi ce qui est extrêmement donc grave. 100 hectares comment dire 200 300 hectares nga jaayee hectare bi 100 100 000 francs mais ça fait 30 millions donc 30 millions yoyu 30 millions yoyu mom la jël fayoo n'est-ce pas donc frais de bornage mom lay wax ay indemnisation donc c'est tout à fait normal donc ça n'a rien à voir avec une quelconque indemnisation maintenant contradiction wax lan la contradiction, mu ñew muni fofu dafa àll la la fa fek. Fek fa kenn de fa bay ay guy ak ay nagam mom la fa maintenant lolo, bu fekkee qui vous def ba pare kon kan lay indemniser bu fekkoon ne fait fekk vous doomu aadama foofu vous kon kay normalement vous avez war indemniser voilà mais vous dafa nii vous fa vous fait que occupé vous ko ne fa vous kon kan lay indemniser si si vous êtes disponible maintenant vous le tour du village bu ngeen gisee benn vous bu ñuul wala bu xonq bu fi Babacar Ngom Vous euh, ngeen wane ko ci écran vous àdduna bi vous ko dama que yoon bu ñu yoon buñu mëna défaral jila, té jilaax te jaar fandan jaar taxum jaar jila dem taset dama yon yoon soxla wuñ ko benen bu ci dess moy ci bir ci bir showam bi dafa ni bamay indi courant damay électrifier courant bay indi ko ça c'est dans le cadre du PNDL c'est dans le cadre du PNDL c'est pas Babacar Ngom donc fil yi euh, poteau yi 2018 lañ ko samp ñu tok di xaar di tok daxaar ba 2019 ñu tak ay fil ñu tok daxaar ba fil yi ñu tak fi sax finalement ñu ngi daan donc septembre yi mu am deux ans yi nga xamantene jusqu'à présent ñun ñu ngi xaar courant amul yoon amul ndox amul dara amul ba paré lu ci gëna graw moy côté ndox bi ñoo bàyyi même avec les privés aujourd'hui population Djilakh lu muy def moy lan le mètre cube mi ngi koy pratiquement à 275 francs ça veut dire que ici facture yi ngay am fi au niveau du village c'est dix fois beaucoup plus cher que facteur yi nga xamanteni mi ngi am pratiquement donc ay Mbour ay Dakar loolu c'est injuste wa dama ni euh, li mbir mi ba mu amee ba légui ministre Abdoulaye Fofana mi ngi ci dox ay tanku jam mi ngi ci dox ay tanku jam ak ñeneen ñi ak wa Sedima té ba légui impliqué wul population population wu Jila dañu nak fi euh le fi tuké li nga xamné moy tuké ci dék ci négociation bobu ak lu mu mën doon eh, engagé wul population wu Jila dañ dégg ñu ne moom moo débroussaillé kii bi àll bi pour te dire loolu c'est archi faux loolu du dëgg Baba Gane ñun dafa ñëw après plan REVA Ablaye Wade moo fi ñëwoon ne ñu carrément day def fii nii plan REVA bi léegi plan REVA boobu noonu si la ñëwee nag ñu ne léegi dañuy déguerpi foore bi pour génne affaire yi déforester ko léegi ci biir loolu noonu si la ñëwee nag. Euh, am pro am proposition yu mu defoon gars yi ci diggante fléau bu fi amoon muy barsa ak Barsaq léegi nag ñu laajte fii recensé ay jeunes yi fi demoon barsa ñu ne leen waa amoon na fi ci biir lool noonu looloo indi mu ñëw proposé yu benn rêve ñu koy wax plan REVA léegi bu mu ñëwee nag mu ne dañuy débroussailler kii bi euh, forêt forêt bi créer ay tool jox jeunes yi ku ci nekk ñu daggal la ñu créer foofu plan REVA ku ci nekk ñu daggal la deux hectares ñu def forage jeunes yi di ci liggéey. loolu moo indi ñu déforester kii bi mais forêt boobu di fa amoon ñu mu ngi ci doon servir ñun lépp lu ñu soxla ñu ko fa doon am mais bu nekkee forêt boobu amul loolu doon njëriñ bu nekkee loolu la wax loolu noonu du dëgg te ñii ñëpp mën nañu ko seede nit mënul woon xëy semaine te demul ci forêt boobu noonu dañ fa doon ut ay xànc lépp lu ñu doon soxla dañ ko fa doon ut suñuy jur yi ñëpp dee nañ te loolu noonu moom moo ko causé loolu moo ko indi léegi nag bu ñu demee ba boobu noonu ñoom ñu teg seen dil ñew buñ pour l'inauguration, bi euh, pour inauguration bi si lañ si buñ démé nak si lañ def sen maguy ñom ci bopam na ñu mairie euh, commune de Sindia fexé ba jox xawma fu mu jëlé ay nit ñëw jox lé du de Sindia moy décider population bi. té commune de Sindia jël ay décision imposer ko population bi instant yi nak affaire bi dafa parce que instant yi une bombe à retardement li commencé woon nañ ko bu yàgg mais ñuy out ay pexé di lal di diviser di jaar fu nek pour gaay buñu buñu nangul lool noonu légui nak li mo nek tay nak gis nga ñi xex bi dañ ko yàgg def depuis 2012 tay nak le gaay yeb doog a comprendre mais ñom lu nek def nañ seen kéemtulaay katan ancien euh, conseil yi fi nekkoon yeb def nañ seen kéemtulaay katan pour lan affaire bi bu mu jóg kaw mais munul munul fay ñun duñu ñu nangu Babacar Ngom ñew fi ni il n'est pas de bonne foi. bu nekkoon nit ku jub gis nga wax yu mu wax lii daf ko gën a daf dafa gën a tax ñun amatuñu confiance ci moom. Babacar Ngom ci boppam nekkul koo xamante ne day jóge fii di ñun noot ñun soxlaatuñu projet Babacar Ngom abal lañ soxla Babacar Ngom lu ñu abal ñun soxlawuñu lool noonu ñun soxlawuñu ko ñu noot ñun dem nañ ci usines yi xam nañ nu muy demee da ngay liggéey liggéey lekk lañ lay jox liggéey naan munoo ñëw jël suñu suuf ba pare pour loolu bu amee projet bu muy def na ko uti dëkkam boobu noonu muy wax na dem foofu ñun soxlawuñu lool noonu ñun suñu projet bu ñu defaree forage bi fii nii ñun mun nañ béy lépp lu kar Ngom lu Sénégal di soxla lool noonu ci suuf si ñun mun nañ ko béy àll bi yëpp dañ koy bay kon Babacar Ngom bu waxee ne ñun mënuñu ko béy wala muy wax ay amuñu moyens yi loolu ay sóob la te loolu état bi moo warul déglu loolu noonu parce que ñun bu ñu joxee moyens yi état ci boppam ñun dañu am droit boobu noonu li ma dégg muy courant ak ndox ak tali ñun xaaruñu ko ci benn nit ñun dañ nekk ay sénégalais. di fay suñu di am di di di di fay suñuy suñuy droit kon di def suñu devoir kon dañu wara am suñu droit ay yoon ñun xaaruñu ko ci kenn nit dañ ko xaar ci état bi buñ ko mënul am ci état bi ñu muñ ko mo ñu gënal gaay ñew ñëw def ñu ay esclavage duñ ko nangu duñ ko nangu fi dëkk bi ñepp ne non lool du mësa yomb du yomb bu ñu defee ay pexé nak ba gaay nekkal ko fi nii fi day affaire day gëna yaatu duñu dellu pare wuñu pour dellu ginnaaw gars yi yëpp ñu ngi nii kii ku ci kenn karewu ci pour dellu ginnaaw ak lu ñu munti def nag bu yeboo ñu lijjanti ko ay këyit ak affaire yooyu noonu nañu ñëw taxaw duñu musa nangu Babacar Ngom fii dafa am jàmm munu ko mu que ñu teg nattu yi ba pare bëgg am fi am am jàmm ci dëkk bi munul nekk bu nekkee moom nag antar na loolu noonu na continuer ñëw mu toog ñu xool ndax loolu noonu ñun dinañ ko nangu wala duñ ko nangu ñun am nañ suuf bi ñun ñoo ko moom bu bëggee na def nañu wax lii la bëgg ñu béyal ko ko ñu jaay ko ko pourquoi pas mën nañ ko béy bu nekkoon nit ku jub du uti titre foncier pour moom ko après mu nekk moomelam loolu Sénégal yëpp ko perte dégg naa muy wax bu nekkoon tubaab si tubaab bii mu ngi fi mu ngi liggéey dëkk bi yëpp a ngi liggéey mais utul titre foncier buy dem daf ñuy bàyyi ak suñu suuf loolu la ñuy wax ñun ñun noonu lañ foog ne noonu la ñuy liggéeyee mais kuy liggéey doo dem uti titre foncier daf ko sa moomelu bopp boo xëyee wàcc ci liggéey ñeneen ñu lay toog ñu lay doon ñëw décider lu leen neexee de ñu du fi am gis nañ comportement yu fi yor Babacar il n'est pas de bonne foi munul munuñu yor bonne foi. nekk ne dë pas dëkkandoog Babacar Ngom nañu de bonne foi.